ay attangi ñu si doon daw ngir jot seen xaalis ñoom ñi leen nekk ay soldats yu jëlee ay gaañu gaañu ñu leen di woowee soldaa invalides gannaaw bi ñu doon xeexal seen réew tey nguur gi jël ndogal ngi fay leen xaalis boobu lee loole nag doon na lu ñuy rafetlu lool. oui oui rafetlu naa ko rafetlu naa dans la mesure où am na dégg-dégg. à laaj nga ñu dégg la lu ci xaw a taq suuf rek mooy que am na ñu jot am na ñu jotoogul te boo xoolee bu baax la plupart si ñu doon xeex jotooguñu. xool yëpp sedd sedd sedd gum na quoi pour l'instant sedd gum na daal. wante mel na ni mbir yi dafa tàmbalee takku suuf ndax suñu sukkandikoo si ñoom ñi lee ñi ëpp si ñoom daanaka kenn jotagu si xaalisam teg si luñ leen di laaj ci kayit dafa bari lool. ñoom waroon nañ mën a bàyyi ba ba fay ñëpp ba pare waroon nañ mën a bàyyi ba fay ñëpp ba pare doog génne communication waaye mënuñu fay ñenn ñi ba pare ñi nga xam ne ñoo doon marche fayuñu leen fay ñenn ñi wàccuñu ba pare génne communication na fay nañ ñëpp jaxasuñoo ak Macky Sall ñun ñoo tax mu am jàmm kay kuy taxaw fii si dëkk bi tey ñun ñoo tax nga am jàmm wax ji dafa war a leer ñun xare ba dara lañ jóge ah kuy jaay ndox wala kuy bëree wala kuy fubal ñun ñoo tax nga am jàmm buñ fi nekkuloon day ñaaw. xamle nañ ni su dee nguur gi jëlul ay matuwaayam fii ak ay fan ñoom ñile dinañu wàcc ci mbedd mi ñaxtu ba li ñu bëgg daldi di saafaraw. tey la mercredi xobaan nga nan ñu jox suñu xaalis dañ ko dañ ko soxla comme ni ko comme ni ko suñu morom yi jotee noonu def benn constat mooy ñi noonu def mars gisuñu kenn ku si jot loolu nag moo ñaawal suñu njot ñun. tey ñu ñuy diviser si division yoo xam ne du fi ñu am ñun nag xoolal barki Serigne fallu Mbacké dama ni leen problème bi nañ ko réglé tey tey la leen mercredi tey lay réglé wala ñun ñu réglé ko.